sant euh, ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi euh, euh, rawatina ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon démb baag si tey di ko taxawu ñu ngi sant sëriñ sëriñ Mamoor sant sëriñ Mouhamed Bachir ñu mu àndal sant sëriñ Xaadi Jaxate ak ñu ko àndal ñëpp ñi nga xam ne ñoo liggéey bi di ko taxaw def nañ ci seen kem kattan ñu leen sant bu baax sëñ bi mi ngi leen sant di leen gërëm bu baax di leen daalem xel bu baax a baax a baax waaye ñun ci suñu bopp itam ñi nga xam ne ñooy pro yi ñoo ngi leen di eh, bége bu baax di leen sant bu baax a baax a baax di leen daalem xel bu baax a baax a baax fas yéene itam lu nu ñàkk ñàkk ñàkk solo ñu ànd ko yéen eh, suñu kem kattan incha allahu eh, booy boo suñu suñu xel daal bu baax a baax ndax alxuraan doy na lépp te ni ma ko waxee woon rek Euh, sëñ bi liggéey na liggéey boo xam ne ci alxuraan euh, fàggul nañu ci fàggu fàggul nañu ci lépp euh, la am solo rek moo de nag nu nekkal ko ci nu nekkal ko ci ni ko bëggee woon fonkal ko def ci sunuy sunuy yitte yëpp di di ko ko defoon fonk ko di di ko jàng guddi bëccëg di ko jàngloo di ko di ko ci yar njaboot gi di ko xamal njaboot gi loolu mooy li nga am solo li gën a am solo liggéey bi réy na loolu te yaatu fa tabaraka la wàll yépp am njëriñ waaye nag alxuraan moo ci jiitu waaw ah, moo ci jiitu nag ah, ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin bàyyil nanu fi bàyyil nanu ko fi te nu xam ne ndono la ci noonu nu xam ne ndigal la ci noonu nu fonk alxuraan di ko jëfandikoo ci biir ak biti di ko def ci def ci sunu sunu sunu sunu sunu sunu feeñal ci sunu yéene na mu gën a rafete yokk sunu itte sunu kem kàttan ne ci nekk nekk guddi ak bëccëg bu nu ko defee jël nu tiit dara wala nu jaaxle dara li nga xam ne mooy dunduk àdduna li ci war loolu sëriñ bi fàggul nanu ko kooku jërta sonn ndax li li li li ci li nu ci mat a fàggul sëriñ bi nanu ko te euh, fekkoon na suñu boroom xam na ne moom moo yor lépp moo yor wërsëgi jaam yi mooy seen cër mooy seen lépp kon li ci am solo rek mooy ñu nekk nekk nekk ñu nekk ci li mu nekk loo waaw wa maa xalaqul jinna wal insa illa liya'budun nekk ci li mu nekk loo rek la jeex lépp moo nu ko amee lu ca war xam na ko lu ci jot xam na ko lu lu mu ci lu lu la mu la mu la mu ca sañ a def euh, warlu ko ca dana ko def kon li am solo mu itte jëm jëme ko ci moom waaw loolu rek mooy li ci am solo te dara ci jiitul alxuraan nag waaw kon nag ndokk bi nga xamee ne alhamdulilahi rabbil alamin euh, nit ñëpp euh, xëy na xam gi mooy pàtte xëy na fonk gi mooy rawaate xëy na yittewoo gi mooy rawaate waaye lépp alxuraan moom mi ngi ci njaboot gi mu ngi ci xoli njaboot gi ñëpp xam nañ eh, alxuraan eh, xam nañ fu na alxuraan toll loolu sëñ bi def na ko ci noonu kon nag alhamdulilahi rabbil alamin la ci am solo rek mooy kenn ku ne fa mu ca toll rek na ko xeeb te yokk ko jëmee ko kanam waaw loolu rek mooy la ci am solo eh, ñu ngi sant bu baax njaboot gi di sant ñëpp jullit yi ndax ndigal li yëmul woon rek ci njaboot gi yëmul woon ci dëkk bi yëmul woon ci réew mi ci fu mën a àgg rek war àggale woon nañ ko fa bëgg ñun ñëpp yitte ji di jenn ñu fonk alxuraan def ko muy sunu liggéey jiital ko sunu liggéey sunu kem kàttan kon nag alhamdulilah xam naa ne fu ndigal la àgg rek yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko xame nañ ko nañ ko diglee defe nañ ko nag ko ko sëriñ bi seen kem kàttan kon nag jërëjëf ñi ngi sant ñëpp te lii waxtu wu ne waxtu wu ci ak tollootee bu ne na nekk sunu laxsaay yitte yitte yittewoo yittewoo alxuraan na nekk suñu laxsaay gi ñuy jiital ci suñu suñu biir eh, di ko gën di feddali di ko gën a dëgëral bu baax di gën di jëm kanam bu baax jëme kanam suñu fo jëme kanam suñu fonk nan war a fonke alxuraan nan ko war a defe muy suñu lépp eh, rawatina nag alhamdulilah eh, wii ci di ci wéyee ndigal mooy ni ma ko waxee woon léegi rek kon sëriñ bi lim mu fi bàyyil mooy suñ ndono mooy suñ digal nañ ci góorgóorlu bu baax a baax buñ ci góorgóorlu rek suñ lépp yéwén biir bi te tey ak ëllëg la demee waaw noonu rek la buñ buñ lépp rek suñ lépp defaru waaw kon nag jërë ngeen jëpp ñoo ngi jéggalu bu baax eh, yéen ji am na eh, waaye lu ci jàdd ci lu ci dëng ci waxee ji nañ ko jéggalu eh, te xam na yéen ji moom lu mu ci yéene suñ bopp rek yéen nañ ko yow suñ tubaab gépp yéen nañ jullit yëpp jërë ngeen jëf ñu bu baax a kon ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan te su ñaanee ba noppi ñu may ko mu yeewiku waaye mbooloo mi nañ ko ak xéewal yaa ngi fi doy na sëkk insha allahu taala ñu ngi koy topp ñi ko war a toppatoo ñu ngi koy toppatoo